mbokk yi jaamu yàlla baax na lool julli woor baax na lool jël avion dem ba Makka aji Makka baax na lool waaye jàpp naa ni am na lu ma ne loo xam ne du ma ne moo ko gën de waaye am na solo trop mooy yéene ñépp jàmm te moyetu di jëf loo xam ne lor nit moo la ci tax a jóg def nit lu metti moo la ci tax a jóg nañuy yéenante lu baax nañuy yërëmante ku ci yàlla dénk lala yàlla dénk bu ko won nit ñi ci anam boo xam ne luy métital la waaye nanga nga ànd ak yërmande jaamu yàlla bu njëkk ci jaamu yàlla man dama gëm ni noonu la ndax yàlla nag nun dinañ ko tooñ nee na mën naa baale baakaar yépp nag ba mu des ku bokkaale ba dee ci ku ma bokkaale ba dee ci waaye lu dul loolu baale naa lépp waaye dafa am loo xam ne yàlla nee na mënuma koo baale mooy li nga xam ne dafa dox diggante nit ak nit loolu ñoom ñoo ko mën a baalante moo tax nañuy moyetu di tooñante di defante lu bon di yéenante lu bon nit mën a dem ba xool moroomu nitam yéene ko dee wala yéene ko kaso wala ne ko li ko yàlla yo joxoon lépp ci am am yàlla na ko yàlla na yàqu su doon dangay yem ci yéene waaye di ko jëf di ko jëfe pour yàq nit wala yàqal nit loolu amul lu ko gën a rëy te dama jàpp ni ga jaamu yàlla foofu la doore mooy mu amalaat jëflante ci lépp ñu teg ko ci rafetal kon yàlla nañu yàlla may xol yu rafet yàlla nañu yàlla may yéenante jàmm defante jàmm defalante lu baax te moytu safaan bi tabaskee ngoog yéen ñëpp maa ngi leen di ngeen def une très tabaski bu ngeen gisee ma génn wax nag xam naa ñu bari tey yeewee ko ndax ñi ngi xalaat président Sonko na ngeen dem dem feet seen feet bu leen ko kenn yàqal na ngeen fireeku na ngeen ko dund ak seen njaboot. ci ni ko diine eh, santaane bu feet bi weesoo nag bu soobee yàlla dinaa jàkkaarloo waat ak sénégalais yi waxtaan ak yéen nag ci tolluwaay réew mi ak li ñuy dëgmal waxtaan ak yéen ci lan moo ci war a doon suñu taxawaay tey du woon loolu mooy jubluwaay bi waaye di gën a soññ ñëpp rek ñu gën a takk suñu ndigg gën a soññ ñëpp rek suñu gën a gëm li tax ñu jóg mooy luy defar réew mi ba faw luy defar réew mi teg ko ci màndute teg ko ci sàmm sàmmante suñu biir sàmm alalu réew mi gànnaaw buñ ko téye ci biir réew mi respektante kenn ku nekk ci àq moroomam ak yellefu moroomam fexe ba waa réew mi mën a jëriñoo réew mi balaa keneen di ci jëriñoo kenn ku nekk ci ñun na ci gën a farlu gën a takk ndigam naam ñoo ngi ànd boobu ba léegi projet nag bu mel nii lu ne mën na cee am am na ñoo xam ne ñaa ngi doon ànd ak ñoom àndatuñoo ak ñoom am na ñoo xam ne rocceeku nañu parce que dañoo ragal wala dañ leen dig wala dañ leen jox loolu buñ ci jàppal kenn dara ndax wàññiwul dara ci projet bi gis nga dañuy wax ni yonti yàlla Isa Jésus Jésus bañ demee ba mu xam ni noon yi ñoroon doole ca jamono jooju yoroon nguur pexeel nañ ko ba dañoo fas yéene ñëw jàpp ko mu dajale ñi mu doon àndal ñëpp ñu toog di waxtaan ñu leen di wooye les apôtres mu wax leen ni fii la guddi ñu ñëw ci yéen ñoo ma dul weddi wala sax boo ma moytuwul yéen ñëpp bi ngeen am lu ngeen tiit wala lu ngeen ragal ba weddi ma pourtant ñooñu ñu baax lañu ñooñu ay saabam lañu ñoo xam ne fu ne jaar nañ fa moom mu wax leen ko mu am kenn ci ñoom su ma juumul Pierre la war a doon ne ko man de duma ci bokk bu ñëpp doon wëlbatiku daw sax man duma daw ànd bu doon kenn moo war a ànd yow dee man lay doon Jésus ne ko balaa ginaar di sab ñaari yoon ci guddi gi yow mi Pierre boo moytul di ma weddi ñetti yoon ba ñu demee ba ñoom ñëw ñu jël jàpp ko hmm. ànd ku ñuy wax Juda Juda ne bu ma ñëwee su ma ñëwee ba ci mbooloo mi ki may lëng waxtaan ak moom lëng ko foon ko rek xam leen ni kooku mooy Jésus biñ ñëwee ñoo ñu xam ni kii mooy Jésus ñu jàpp ko yóbbu ko fañ ko doon attee ñi mu doo àndal ñëpp kenn moo jot a dem ba dugg ba ci biir mooy Pierre moom ñi des ñëpp dañoo dawoon xool fu ñu làqatu waaye bi ñu toogee ci biir mu am benn jigéen boo xam ne dafa xàmme Pierre ne mbooloo mi kii de ci àndandowu Jésus la bokk Pierre na leen kii de musuma koo xam musuma koo gis tey laa koy doog gis muy benn weddi ñu demaat tuuti beneen jigéen jóg ne leen kii de ci moom la bokk fekk naa ko ci ñoom xàmme naa ko Pierre na leen musuma koo gis musuma koo xam tey laa koy doog a gis muy génn foofu benn groupe bu nit ay góor ñëw taxaw gis ko ne ko yow de ci moom ci ñoom nga bokk ci moom nga moom nga bokk te sa accent sax wane na ni gali galiléen foofu nga dëkk mu ne leen waat naa ni musuma koo xam musuma koo gis daa di daw génn bi muy daw bay génn dëkk ba la dégg ginaar gi sab mu fàttaliku li ko Jésus waxoon ne ko tey balaa ginaar di sab ñaari yoon di nga ma weddi ñetti yoon te weddi na ko ñetti yoon te pourtant ñooñu ñu baax lañu kon projet yu mel nii dañuy toll foo xam ne lu ne mun nañ ko cee gis waaye tey fu mu mujje kan moo ëpp ay nit Jésus Christ ci àdduna bi kan moo ëpp nit Mohamed sallallahu alayhi wa ay nit ci àdduna bi pourtant loolu dal ci Jésus Christ dal na Mohamed ndax ñi nekkoon ci biiram ñoom Abdallah ibn Salul ak ñoom seen demoon na ba xam ni ñii ay naafeq lañu mu xam ko. alquran ñëw na ida jaaka almunafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaadibuun dañ doon ñëw ne ko ñun seede nañu yow yaay yonente bi seede nañu yàlla allah mooy yàlla waaye gëmuñu fi woon dara te pourtant ñi ngi ci biir moo tax di nga ci gis loolu ding ci gisit it ñu dal sa kaw ñi ñu jàpp ñi ñu gaañ leen ñi ñu rey leen ñi ñu defal leen def leen lu métti waaye boobu nga war a gën a am dëgër laay xam ne yaa nga ca yoon ba man de gëm naa ni projet bi te su ma demoon ba am ci lu toll ni tarafata ayn ci dut yàlla mët ci saasi lay bàyyi waaye dama gëm ni projet bii mooy defar Sénégal ba faw ndax ñun ñi ko yor soxlawuñu dara dara saleeru président sax bëgguñu moo tax ci fan yi di ñëw dinaa ñëwaat ak yéen ci lu gën a yaatu ci li fi xewoon li fi xew ak fi ñu jëm ndax xam nañ li xew xam nañ fi mbiri di jëm waaye fi mu toll nii ñaanal leen tabaski jàmm ne leen lépp lu ne woon seen xel ci ay njaqare ak ay xalaat génne leen ko bu leen kenn stressé li ma leen yàgg wax dem leen ngeen feet feet bu neex ak seeni famille seeni mbokk seeni baay seeni ndey seeni doom seeni soxna seeni jëkkër seeni dëkkandoo profité leen bu baax ci xar bi ñaanal leen réew mi parce que bésub ñaan la bu ñu génnee ci loolu yëpp nag ñu jublu ci liggéey bi